Euh, damay contane di sagu ci le fait que ñu mën tok fi tay di di fekkee signature bi nga da fay bolé euh AFTU Senbus ak banque yi nga xamante muy muy euh pour le programme de des bus interurbains ak waa FNB banque pour li nga xamne moy programme renouvellement des bus urbains.